foofu la ñuy tàmbalee di sant yàlla bu baax ci lii doon def din nag ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko yàlla yàggal ba lim yéene lépp dal ci suñ kaw ndax yaakaar naa ni wax na ni bëgg na bu altanee ñu jàng ay kaamil ñaan yàlla réew mi jàmm rek xew ci kon kooku bëgg na jàmm bëgg na suñ ñun nag ñi ngi nuyu délégation bi fi premier ministre yabal di leen sant bu baax di leen gërëm njiit li di sëñ Abou Sall kon daanaka nekk di ci lim du ko jar comme tudd na njiit rek tudd maam say mi nga xam ne noo bokk Madiana xamal ko ni ko noo koy siyaare di nuyu nag sëñ Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma ndax ñun tamit li may wax rek di ko wax ñun dañoo suñ suñu dëkki maam dikk fekk sëñ Touba kon nag sëtub sëñ Touba bu ñu wootee sunum ndaje mu ñëw ñun duñ man la dul sant ko ndax danoo jébbalu te danoo bëgg a dëggal wax kon sëtub sëñ Touba bu ñëwee teew ci li ñuy def ñu yaanuy moom lañ doon wax kon nag ñu ngi koy sant moom bu baax di ko gërëm di nuyu nag jigéen ñi fi nekk ñëpp ñëpp responsable yi fi teew xam naa ku lim juum du ma mën a lim ñëpp waye ma ngi lim nuyu wa Touba gep quartier Touba yep fep fu nga xamne jigen joge na fa nek responsable yoru mbotay yakar na par marché Maam Jaara ñoom ñom moom yëf yi parce que dañu leena a jox carte ci wax. waaw kon Madiana gi ma dekk ñom jox nañ soxna Ndu Basuur mu wax ñeneen ñi fi dekk nak quartier yi ci dekk yi ci Touba ñum xam ngeen bu baax suñu doxine dinañ leen jox te duñ leen laaj remboursement bu ci yàlla andee dinañ leen jox te bu soobee yàlla duñ leen laaj remboursement kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm waxtu bi dafa xat ñëpp kenn ku ne mënut a jël paral loolu moo tax dañuy tënk rek li baax nag ñu bëggoon koo def mooy lii parti lim laaj mooy animé ku ca bokk xam ne ca nga ca ca nga bokk léeg-léeg ñu woo leen. xamal leen ni lan nekkoon nangu ci en tant que premier ministre ku ko woo wuy la boo ko envoyé vocal mu xool ko tontu la ca waaw kon ñun ñu koy sant bu baax di sant bu baax di leen xamale nag yéen li tax ñu woo leen fii dañoo bëgg li ñu jublu kenn ku ci ne fexe wañ gis gis ci boppam buñ ca yeggee kenn ku ne koñ ba nga nekk danañ la fa fekk dañoo bëgg nag responsable yi fi dajale yéen ñëpp li ñuy def mooy danañ taxawal suñ comité électoral yéen ñëpp dañ leen ci boole fu waay jógee ñëw daal na nga xam ne bu ñuy taxawal comité bi di nga ci bokk gox ba nga gox ba nga jógee ñëw bu ñu taxawalee comité bi comité bi comme comme kii bi. comité électoral bi bi gox ba nga jógee dañuy bëgg ku fa nekk jóge ci ndaje bi ñëw nga saytu fa nga jógee danañ la jox loo ko mën a saytoo. ñun nag liñ ciy doole mooy jërul su jëf yi jërul guddal président ji boppam dañoo lebaloon ngor dañoo demoon ci élection législative mu jël. Touba boole ma ca ñam tànn tànn Cheikh Abdou Bale mi yaakaar naa dox nañ lu ko mate muy journaliste muy kenn ku ne li leen di sawan moo yàq xam nañ ni def nañ fi lool kenn mësu koo def muy campagne bu rafet ci yar ci teggin Touba lim laaj ñun noonu la ñuy doxee yar ak teggin waaw ren nag liñ ciy boole bala ñuy jógit dañ ci boole borom kër yi kilifay jigéen ñi kilifay gone yi fas nañ yéene bu ñu jógee li ñu war a def danañ ko defanteeg ñoom campagne campagne bu rafet maa ngi sant ñëpp nag di baax di dellu nag di santaat premier mis xam ni am nag yëg ci président waaye yëg gim am daal na xam ne ñun ñoo ngi ci ginnaawam danañ fexe ba li mu bëgg ci Touba moom. parce que waa Touba yi ñun li ñu xam mooy ku ñu yëg te woowuñu ko mennum mennum moom soxna Njóobaa ngeen mooy Mbàkke la maam Seye ngeen mooy Mbàkke sant waaye danañ xam ne tamit nag Touba moom li ñu xam ak yëg la soxna ay dëgg responsable la maam Thioro Diouf ma nga soxna Mati Diané kon ñi ma àndal moom xam nañ fa ma leen war a fekk xam nañ ko te dinaa leen fa fekk bu soobee yàlla maa ngi sant ñëpp di leen gërëm nag jërë ngeen jëf jërëjëf